يسر لي ميسر أسيري مختار أولي بلا مسيري يسر لي ميسر أسيري مختار أولي بلا مسيري يسر لي ميسر أسيري مختار أولي بلا مسيري ولا العين لسواي مدبرا بما على الذري يدوم دبرا محا توجه المكاره لياك باق حبا بذكري وهو لياك عنه رضيت وأني راضي بلا مكاره ولا أمراضي ردني غير جهة الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة العين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفد وصفت نبي توفيق القاد والإلام هذا بليالي ما لأم بآمه بدت لي اليوم برب الغيب آذني ممن قل وقيب لا يتوجه لنحوي مطعب عن محت مكارئي والطعب سعادتي بغير محو كتبتي وكوني الأبد القديم قد صبت شكر لي ميسر أسيري ما اختار أولي بلا مصيره يسر للأكرم تيسرا يفوق قل لي وإب الله أجاري رفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني إليه بالتكرم سقط له الحمد مع الشكوري ولم يذل برافع شكوري رفعني الرافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لا شكوري بلا كفران وصانني بالحل والجيران يصون عن كل أذى جئاتي مغن يدي بأكذا أن آتي إذا تلوت آية فرلعن لغير ذاتي ويذود المعن لم ينؤني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفنيس أيس مني العين والقلاب ربي بمن كتابتي تنمي أولاك كتابتي فاق سيوق التربيه وكل خير وسيوق الترقية ردت كتابتي بإذن الله لغير نحوي كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفوق قلي وإبلاه جاري رفيق يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة خذ من القدم يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة قل من القدم يا ذا القيام أبدا والوحدة يا من بي إليه وحده إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام يا محيا بالمنتقى آلامي إنك قادر مريد عالم حي فميء زهد المذالم أنت بصير متكلم جذبي يا كتاب المجيد فانجذبي لك بلا فتراء النفسية يا من كفاني ظلم النفسية لك بلا مراء السلبية يا من كفاني الظلم القلبية لك بلا سريك المآني والمعنويات بلا مؤان يا فاعلا بإذنه يجري القدر بغير أحمد كذا سقط الكدر بجاه أحمد الكريم الألمي يا من به ألمت ما لم يحلمي يا ذا وجود وبقاء وقدم للأرش والكرسي قسط القدم اجعل حجابك التي لا تخطر ببال شخص أتكوه إذ يستر اجعل حجابك التي لا تخطر ببال شخص اتكو إذ يستر علي في الدارين وكفني الضرر فم وعين سرمدا وكل شر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن حسننا توق ألسن الورى وأيديا أنظرني بالله جل ربي قلبت بالله إلى سوايا بإذنه جل على البرايا نعوت وهو القريب والمجيب دعوة داعي بحرمة الحبيب وقاية تعصمني من شر ما في الأرض والسماء وما بينهما من إنس أو جن وشيطان لعين وغيرها دنيا وأخرى كل حين قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بعزة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد سطر بفضله مائبه عن الورى حتى يظن أنني ذبيني ديني شحني كل حين مع أنني أقبل من كل لئيم سبحان ربا كريما وحكيم ثم سلام يلا نغن كو جارينو li sëñ bi wax nag li sëñ bi wax nag kenn mënu cee teg lenn kenn mënu cee teg lenn ndax yonent bi saa dafa wax ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne tur yi gën ci tur yi tur yi gën ci tur yi mooy tur woo xam ne yàlla da caa gis boppam mooy tur woo xam ne yàlla da caa gis boppam gis ci boppam ak yonent boo ko mën di tudde boo ko mën di tudde te yaakaar naa ne te yaakaar na ne bu ñu nee yàlla gis boppam nag bu ñu nee turu yàlla gis boppam nag mi ngi mel ni nga ne Abdul laafe ko dara rek mi ngi mel ni nga ne Abdul laafe ko dara rek Abdul Karim Abdul Rahman Abdul Ahad ma ngoog Abdul Wadood Abdul Samad Abdul Nangam bi ci topp mooy Muhammad turu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo xam bu muy ci turam yi la moo xam Moustapha la moo xam Murtada la turam yi bari na tur wii nag di turu ki nga xam ne di ki nga xam ne. yonent yi yonent yi. ñi ci tuddee as mi ñi ci tuddee ulul azmi. moo leen ñaareel moo leen ñaareel. أسى وإني اليوم زور توصلي له بأسماء زو تفضلي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب سل صل على الذي به تجيب واقبل به نزمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ربي بنوح وبإبراهيم لخير زنوب واكفني رجيما kon kon Ibrahima Ibrahima. mooy kenn ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci yonent mooy kenn ci ñi xam ne ñoom la yàlla jiital ci yonent yi. te mooy aji ñaaral ja sax. mu dëppoog nag. mu dëppoog nag. sunu jàmbaar sunu jàmbaar. muy maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ bi wax na ko. sëñ bi wax na ko. budul woon ak moom. fu nu jëm. bu dee jëriñ ci sëriñ bi rek. bu dee moo tax. kon wax dëgg yàlla amel nan ko cant amel nan ko cant amel nan ko njukkal amel nan ko ngërëm yàlla nanu ko yàlla fayal bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bis bi nga xam ne rawatina bis bii nga xam ne day bisu talaata ndax yaakaar naa ne bisu talaata cosaan la ci maam Cheikh Ibra cosaan la ci moom sax lool sax ndax wax nañ ne am na yu bari yoo xam ne ci bisu talaata la ko am kon mu dajeeg moom kon yal na barkeb maam Cheikh Ibrahima. kon yal na barkeb maam Cheikh Ibrahima. wàcc ci wàcc ci. kii ñu doon tudd. wàcc ci nun wàcc ci nun wàcc ci murid yëpp. wàcc ci julli yëpp. bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke weeru gàmmu tedd wi. nga xam ne ci la nekk. nga xam ne kat. Ah, lu ñu war a fonk la. lu ñu fonk la. ndax. ndax fu nu fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek pour nu fonk ko

yàlla sama lekh bi nek suuf sa nga xamne mom la yonenti bi tegub tankam bu jujje dikke dikkee ca. bu jaan dikke dikkee ca. bu degge dikke jam ca. bu yonent bi alayhi salatu wassalam jaar sama lex yàlla. kooku kon famu tollu ci serigne bi sori na. Mhm. kooku fa mu sax. neena yonenti rek mooy sama yakar mooy sama yaakaar. مقولي أنا الذي غفلت ما أمر يوم القيام يوم أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي أنا الذي أكل في النهار بلا تطوق لوجه الباري أنا الذي لم أخذ الجوال أمانة فقد نجحت أنا الذي لم أجتنب ملاما مفردا لحظتي ألاما إلا أطلب لنا ذا الدجال نبينا باب الهدى فلا يحاسب قدا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو الغفور الذنوب يا لطيف يا خبير يا عليم yonent bi nga xam ne mooy dugg njub nga màggal ko moo xam da ngay màggal moo xam da ngay bégle moo xam da ngay bégle sukkarin aw la moo xam lu saf sukkar la moo xam lu saf sukkar la moo xam ndawal la moo xam ndawal la dem na ba ne ku ko def man nga leen ci tiyaabo ak daraja ak daraja ña teewoon badar ña teewoon badar ak ña teewoon faneen ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xale ka xeex di yëkkati lislaam salaam kon ngi sonn suñu bopp kon ñu ngi sonn suñu bopp di leen soññ ci weer wi ci weer wi rawatina bis bi muy guddi gi rawatina bis bi muy guddi gi ni ko sëñ bi santaane ni ko sëñ bi santaane bëggee ko noonu bëggee ko noonu nañu jéem a góorgóorlu nañu jéem a góorgóorlu donte duñ ko mënee noonu kem kattan waaye ñu def suñu kem kattan ba feeñal ba feeñal ko ñi nga xam ne ñi nga xam ne noonu la ko santaane noonu la ko santaane ñëpp mooy ñu maase ci rek te ñun ñëpp ñu mooy ñu maase ci rek fas yéene koo def دعاني الى حساسه كونه لخير ولا صرفا امام كل سببي لما خدت لما خدت من سيرين توبا ما دوندل وير وي ما دوندل وير وي ni weer wi nekk ndabul yonent bi saa weer wi nekk ndabul yonent bi alayhi salaatu wa salaam. maanaam ni ci yonent bi saa salaatu wa salaam gane àdduna. loolu may màggal weer wi. loolu rek xëcc na ma tax may màggal weer wi. waxaatuma la guddi gi. waxaatuma la guddi gi. kon yàlla nañu yàlla dimbali. kon yàlla nañu yàlla dimbali. ba nu bokk ci ñi koy dundal. ba nu bokk ci ñi koy dundal. te lépp luñ ca digle ci aw yiw. te lépp luñ ca ci aw yiw. yàlla bu ñu ci kenn ëppale. te lépp ci am. te lépp luñ ci am. yàlla nañ ko sëriñ bi nangul muy addiya. yàlla nañ ko sëriñ bi nangul muy addiya ñu defal ko ko ñu defal ko ko addiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donte xeebu nañ sax donte xeebu nañ sax ci jox ko addiya ndax sunu doyadi ndax sunu doyadi ak sunu tilim ak sunu tilim ak sunu taq ak sunu ñàkk solo waaye ci mbaaxam waaye ci mbaaxam yàlla nañu labal ci laabam googu yàlla nañu labal ci laabam googu yàlla nañu labal ci laabam googu ba ñu set wecc wecc wecc allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kaddu yéene la kaddu cant kàddu yu xol bu sedd la kàddu yu ndigal la ndax daahira bii nga xam ne moom lañ bokk muy jaalibatul maraaxib bu nekk Touba Masaalikul Jinaan te njiit la di sëriñ Masey Sarr ñoo ma yónnee kàddu moor sant kilifa yi fi toog tàmbalee ko ci sëriñ maam Cerno Mbàkke mii nga xam ne moo fi jataay bi jëmmi sëriñ Touba ndax sëriñ Touba kennam ci mbooloo moo ko fay teewal aw sant bu fa ñëwee moo xam mbakkeel ju mën a doon su teewee ci barab mu fay góor mu fay jigéen jëmmi Sëriñ Tuubaa lañ koy xoole mu fay mag mu fay ndaw jëmmi Sëriñ Tuubaa lañ koy xoole ndax Sëriñ Tuubaa kat moo toll noonu waxuma la Mbàkke waaye lu mos a laal ci moom rek bu tewee ci barab jëmmam lañ koy xoole wàcc waay te di gën a jaayantewaat ak yow kon dereti sëñ Tuubaa direct la ndax sëtëb sëñ Mor Anta Sali la waaw waaw ah sëñ Cheikh Absa Mbacke waaw sëñ Cheikh Absa kon sëñ Cheikh Absa Mbacke mooy maamam kooku kon direct la ci sëñ Tuubaa dara doxul digganteem sëriñ bi kon Mbacke bala noo ngi lay siyaare te di ñaan ci daraje Sëriñ Touba suñ borom gën a guddal soo fan te wéral say cër te mottali si yéene ci daraje alxuraan barke xasaayid yi barkeb Sëriñ Touba noo ngi siyaare bu baaxit it sëriñ jiili mii nga xam ne moom it ma nga bàyyi ko ba njaareem bokk ci daara ji di sët ci sëriñ Mor Mbay Siise nga xam ne jëmmam ak jëmmi daara ji yenn jëmm la fu ñu ko gise waa daara ji gis ko fu ñu ko gise gis waa daara ji li mu wax ci moom loolu moo nekk ci moom ba mu jàppee waa daara ja ba tey ji waxtu wu nekk bàyyiwut tàyyiwut te Sëriñ Tuubaa tax rek mu jàpp leen ndax su ko neexan añ bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bal na ko maamam doy na ko sëkk waaye day xeeñ ci lu baax ba kenn ku mu gis ci waa daara ji da la jàppe jëmmi Sëriñ Tuubaa loola nag cër bu réy la boo xam ne waa daara ji xam nañ ko kon Sëriñ Jiili ñoo ngi gën a jaayantewaat ak yow te gën a jàpp kóllëre gi di ñaan sëriñ bi nga xam ne lu mu téye du rëcc mu téye nu sunu ànd fii saa ero baatin di siyaare sëriñ Maxtaar Silla mii sëriñ Maxtaar Sarr mii nga xam ne moom it ni ko sëriñ bi waxee rek moo nekk ci moom sëriñ jiiri ndax kat yaaral xafaa yaa bi ay nil xal bi saayiratan kamaayu saa iduma taxtan ak i naati sëriñ bi daa wax ne am na ñoo xam ne day defal na leen basiratul xal bi ba bu nu gisee waaja dañuy xam ne waaja la loola nag suñ borom nda koo def ci sëñ jiili mii ba loola mu xam ko ci sëñ maxtaar sëriñ maxtaar soobu gu mu soobu ji bi tax na sëriñ bi soppi aw meloom soppi jëmmam ba ko gis danga nga xam ne ci waa kër sëriñ Tuubaa la bokk loolee nag tegtal la bu ci murit yëpp di ab soññee kon sëriñ maxtaar noo ngi lay siyaare yow tamit di gën jaalibatul maraaxib di waa masaalikul jinaan ca ndakaaru seen pas-pas ak seen yéene weesu bëgg ak Serigne Touba Serigne Daawuda mi dafa bokk ci ndawi daara yi nii ñu ko defale noonu lañ ko defale mbooleem mbokk yi nga xam ne mos nañoo am bis bu mel nii yemut ci moom dong waaye tàmbaliwut ci moom dong kon ñeen ñi nga xam ne yéen di fi ay kilifa na ngeen gën a ñaanaat ci liggéey bi ndax liggéey bi kat liggéeyab Serigne Touba la ci ay ndaw dong ñoo ko seq ndaw yi nag weesuwut lu nuy ci sëñ bi la xëy ci sëñ bi la gont kenn ku nekk bu xëyee lami muy xeñtu mooy nu mu fexe ba am sëriñ Touba euh, ni ko sëriñ ji li waxe it soxla yi bari na yitte bari na waaye dañoo bokk luñ mënta séddoo muy sëñ Touba moo nu fi dajale kii nga xam ne it moo nu fi dajale te jii muy tu tànk bii nga xam ne moo fi wàcc jamono ñu doon ko wutal aw tur tudd nañ ko tur woo xam ne képp koo xam ne aji sell nga tur yu dégloo na la rawatina nag koo xam ne sa lépp Serigne Touba la ndax maam Cheikh Ibrahima Fall Abou Rijaalullahi ñëpp xam nañ ne lu waaye am ci Serigne Touba la ko may mag ñi fekkoon ci Serigne bi da leen ñi nga xam ne moo leen jiitu ci sëriñ bi da leen soññ ñi nga xam ne ñoo leen ginnaawam it da leen soññ kon Cheikh Ibra Fall ngàcce ngalaam wàccu nag ñëpp képp ku am dara ji ci yoon wi it nanga ko ko sante ku toog ci suuf ñu toog ci kaw nanga ko ko sante ku taxaw ñu toog di la ëpp nanga ko ko sante ku ñuy beel ay tool nanga ko ko sante ndax loolu lépp moo ko jëmbat ci sëriñ bi ba wëlbati ko mu doon meññet moo xam ne garab la gu meññ ci kër yëpp bañ ko fay wett te loolu moo ko fa njëkkee kon noo ngi sant Cheikh Ibrahima Fall sant goo xam ne sant xol la goo xam ne ci làmmeñ lañ koy wax waaye xol bi fees na dell ci Cheikh Ibrahima Fall kon noo ngi leen di siyaare yéen waa ahlu jaalibatul maraaxib di leen xamal ne nii ñu nekkee bu ñu ci kenn mën a génn muy doon benn àndandoo di yëkkatendoo di tegandoo ndax loolu rek la suñ Tuubaa bëggoon ca mag ña eh, Muhammadu Rasulullahi alayhi salaatu wasalaam lii la nekke woon ak sahabatu rasul Sëriñ Tuubaa yi lii la nekke woon ak mag ñi ko daroon kon nii ñu nekke bu ñu ci dara mën a génne mooy di xëy ci sëriñ bi tey gontu ci sëriñ bi tey bennoo di dimbalante ci suñu ñàq di dimbalante ci suñuy xel di dimbalante ci suñuy doole di dimbalante ci suñuy pas-pas lii mooy ab ànd li ci des lépp amul njariñ lii rek mooy njariñ li kon na nga xam ne waa ahlu jaalibatul maraaxib amel na la ak cant yooyu tamit ndax bis bii kët ñi ko am bari na waaye am ñu mel nii moom néew na ndax ndaw ñoo xam ne seen ak bëgg lépp sëriñ Tuubaa la seen i xëy lépp sëriñ Tuubaa la boo amutoon melo wi nga am doo leen am amuñu ak jot ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fu nu jëm waaye danga nekk ci sëriñ Tuubaa wér noo tax ñu fekk si la am na ñoo xam ne ku leen am xamal na fa nga tànk tax nga am leen ndax nit ñi kenn moomu leen rawatina nag nit ku tege ci aw yoon xam fam jëm ñàkk ak jot loolu moo dal waa ahlu yàlla bu maraaxib kon kun xëy ganasi la tax ñu ganasi la saw melo la sa jikko la sa pas la kon na nga ci gën a way te gën cee def fulla ndax ñi amuñu jot te amuñu caaxaan amuñu fu ñuy wër di kenn ngir kenn ngir intérêt àddina ku ñu topp suñ tubaa tax ñu topp la ku ñu ganasi suñ tubaa tax ñu ganasi la kon li tax ñu ganasi la feeñal nga ko wane nga ko ndax kii di gan gii tey jii boo doxutan ci melo wi nga dox doo ko am Cheikh Ibrahima Fall yóbbu taam Cheikh Ibrahima Fall mbiram biir la Cheikh Ibrahima Fall ah li ko sëñ ci li wax man ngaa doon am murit ba faatu ami murit te du tax nga am maam Cheikh maam Cheikh lu jafe la maam Cheikh Ibrahima Fall ñu néew koy am ndax fam ne daa sori lool te bët yu bët yu néew koy gis man ngaa dox ba say tànk jeex te du tax nga gis Cheikh Ibrahima kon ku doxul ci dëkk dëkk dëkk Sëñ Tuubaa du am maam Cheikh dox ci Sëñ Tuubaa nag dafa bari dafa bari ay melo bari ay yoon waaye yoon wu ca gën gën caa jub gën caa dëgg gën caa am tawféex mooy wi nga jaar ci Cheikh Ibra Fall roy ko roy ko roy ko sëkk sëkk sëkk roy Cheikh Ibra Fall weesuwut ko sa bopp kon <clears throat> am nañ ak cant am nañ ak jaayantewaat ci bis bi ndax talaata jii bis bi bis baatin la barke maam Cheikh Ibra Fall man de bis bi nuruma ci wan a teew man sama wàllu bopp suñu xaadim ñax mi nga xam ne wax waye lima ci taxat yow man xaw waaw xamna ni ne allah te it tawfiq la ngeenel la bis bi bisab jihad la barki alquran billahi la ilaha illa huwa wa wax dëgg la bis bi kawena bis yu bari te liko waral moy jëf ju suñu borom nangu jaarale ko ci suñu ak ci rafat waaw ndax Cheikh Cheikh seigne daoud mi li mu doon defal seigne Touba ba seigne Touba faye ko mam Cheikh mi lola lola lu doy war la. lola lu doy war la lola am xel mënu ko daj lu xel dajut nak li su ko ras lu xel dajut li su ko ras am xel limi daj lañ mën ras waye li am xel dañu ko. ngëneel la gu ko ca borom ngëneel ya wàcc ci sun biir kon nañ xamé lolu ak jaayante jaayantewaat jaayantewaat nañoo ak Cheikh Ibrahima Fall jaayantewaat nañoo ak Serigne Touba. jaayante waat nañu mbooleem ñi suñ Tuubaa gërëm jaayante gu biir boo xamante ni dañ ko bëri ci làmmiñ waaye yàgg na ci suñu xol mbooleem ko suñ Tuubaa mos a def ci yow dara jàpp na na jàpp goo xam ne ni ñu jàppe jëmi sëriñ bi leen la jàppee ndax xam na ne sëriñ bi lu mu def ci nit ci jëmam la bàyyi ko nañ xam ne mag ñi suñ Tuubaa gërëm jëmmam la jël jox leen kenn kone ba ngay jógee say bokk booyaf nga lool ñu xeeb la ba nga delloo des nga gan ñu naw la kon sëñ Tuubaa jël jëmmam def ci yow doonatoo ko doonatoo sa bopp doonatoo say bokk jëmmi sëñ Tuubaa nga fa nga nekk loola it nañ ko xam moo nekkaat ci njaboot gii suñ cer Cerno mii di si rëb sëñ Cheikh Absa Mbacké la dal ca maam ja moo dal ca baay ba wàcc ci moom mii sëñ jiili mii la dal ca baa ca dal ca maamam moo dal ca baayam wàcc ci moom moo rogalaat ba ci kenn ku nek la dal ci sa mo ro ko dal ci sa baay wacc ci yow kon lolé buñu buñu ko buñu ko yak buñu ko sagane buñu ko tiaxan nañ ci def bakkan te yoon wi kat Cheikh Mouhamadou Bassirou mbacke da waxon ne kep ko xamne ya nga ci bo yokku da nga wañ kon yoon wi yokku la laaj waye donu sa baay donu ko ci ay kat kat donu ko ci ay jongama donu ko ci ay talibé te defalo ko dara yokko yoon wa da nga wara fekk la fa sa wan nga baye ko sa sàkk leneen loo xamante ne bi yaa ko sa baay loolu mooy ab añ loolu mooy jom loolu mooy fulla waaye doon sa baay am na solo waaye doon sa baay da koo gën mag ñi dañoo doon woon seeni baay seeni baay doon suñ Tuubaa kon ñun li ñu war mooy doon suñuy baay doon ko bu ñu ci doon gi de nañ ko doon ba pare doon ko doon mbir mooy doon ay alal ak i jeeg ak i ak ak i kër loolu doon la waaye doon mooy lan la nga xam ne moo fay ngañaay nga jël ko ku dal ci sa kaw xam na ci suñ Tuubaa lu mu sàkku ci yow bu giseen suñ Tuubaa am ko loolu mooy jom loolu mooy fulla waaye li fi sa maam bàyyi nga di ko sàggane sol sa mbubam bàyyi di wër du njom du fulla du du ob sag loolu nañ ko nañ ko bàyyi kon wasalaamu aleykum te doon wax ab donga la bu xeebu boo xam ne mbooloo ko jiital di ko wax loo liñ koy wax loo mënu ci dara waaye da koo mënta ñàkk a wax ndax mbooloo mu toll nii ñii ku ñu jiital wax loola soo mënut it danga jéem moo tax ñuy jéem di wax waaye li wér daal sunu xol seet na ci yéen sunu xel dal na ndax ay mag defarab suñ tubaa bu teewee ci biir di gone wàcce seen bopp loola na ngeen xam ne suñ tubaay kese la waaye du dara waaw suñu xol seet na ci yéen bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax suñu xel dal na suñu yaakar dolleeku na kon والأميد وكل من لم يوني فهو كميد تسليم من لا يوجه على الذي يليك هانيا من جلال بذلك قد ما من أمسى الحمد لله من ابتدائي على ابن عبد الله ذي المداني بلاعة المختار ليس كما على من بنكاء بالله وبرسوله من قال الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وصادة دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام متنبي هو الذي لم أرى غيره النعيم وسيد الكونين باسط النعيم سعيد تظلم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وما الخالق لي أباده ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباين ناجاني العليم والخبير وجاد الواسع والكبير فرح الجميل نعم النافع Why?